nag Cheikh Thiaw Cheikh Thiaw nag dañuy am lu ñu organisé dubbee ko sant Serigne Saliou loolu nag fukki fan ak juróom-ñett lañ koy amal ci weeru janvier bi ñu dëgmal muy suba. raniyallahu alalaay bila taarurin wa umuri taqabala xabar xulaati amaal wasaadi نورا لم يلوني ما باء الله فضلا ولا إله إلا الله شيخ ah, cheikh ni nga nuyoo Cheikh Thiaw ni nga baax na di lay nuyu bu baax baax a baax di la dalal ci suñu plateau yeewu leen sëñ Cheikh. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ataytani yaa rabbi min ladunka sikran afiman faraditu ak mm. sëriñ Saliou ak ngi santaat sëriñ Saliou mm-hmm. ci teewaay bi mu jàppandal ci sunu mm-hmm. dund ban teew ko fii mm-hmm. mën a jàkkaarloo ci sunu réew ak ay doomu aadama yu bari di yaatal li nga xam ni moo di ak cant ci jëmmam ji nga xam ni lépp nu nu mel ci mbaax rek sëriñ Saliou moo ko waral kon bu ñu ko santee te nuyu ko nuyu Serigne Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim ak jëwriñu Serigne Saliou ji Serigne Cheikh Mbacke sëriñ Saliou ak sunu sëng bu tedd ba ki nga xam ne moom la ñu jébbal suñu bopp muy Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi mu nuy nàmpatal ci leeru sëriñ Saliou waaye dañ fee teew ci kilifteefu suñu jëwriñ yi nga xam ne moo jiite liggéey bi ñu nekk di daayira Soxna Faat Jaxate muy jëwriñ Pape du Ndiaye ñu ñëw fi ci ndigalam war a àggale suñu yéene ci li nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ni ci lañ nekk liggéey bi ñu nekk muy sant Serigne Saliou Mbacké saa yu nekk waaye dañ ci tànn benn bis boo xam ni Serigne Ousseynou Kane daf ñu ci jox ndigal muy bis boo xam ni mhm. dañuy biral cant gi ba àdduna yëpp xam ni daayira Soxna Faat Jaxate ñi ngi sant Serigne Saliou suba lay doon mën nga ñu wax fan lay nekk ak euh, naka la programme bi nara tëddee waaw tey la tey la tàmbali sax nag mhm. ndaxte tey guddi maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tàmbalee mhm. ndaxte moom day kenn koo xam ni ci yoonu murit lu waay di dugg ci yoonu murit te bëgg mu am xorom mhm. da nga ciy boole Cheikh Ibrahima Fall mhm. ñu tàmbalee ko ci moom mhm. tey ci guddi ajuma gi ñu def ci guddi Cheikh bu nu xëyee njàngam alxuraan lañ koy tàmbalee wàcce kaamil ci daanaka bëccëg bi ba nga xam ni julli nañ tisbaar ba pare ci la ñuy tàmbali njàngum xasida mi ci ay kuréel buñ ca paree dinañu commencé njàngum rajas mi loolu bu noppee ci la ñuy def ginnaaw tàkkusaan bi ñu dalal sëriñ bi ak ñi nga xam ni ñoom lañ duppee bis bi woyal bis bi ba daanaka bu buñ jullee timis ba pare dina fekk uh, li ëpp ci bis bi dana jàll mm. daanaka bu guddee ba guddi 23 heures lay doon mm. kon li nga xam ni moo ci ëpp solo daal mooy Serigne Ousseynou Kane dana ànd ak njabootam mm. ay xaritam ay am di ay taalibeem ñëw fekk si ñu ci suñu dëkk bi nga xam ni fa lañ juddoo muy Grand Médine mhm. fa la ñuy amale cant gi cant gi itam du fi xaj sax waaye liñ ci leeral rek mooy mhm. ki nga xam ni moom la ñuy sant mooy Serigne Saliou mhm. bari na ay wax yum wax yoo xam ni jar na ndaw ñi ñëpp sant ko waaye dañ ciy tànn benn comme xat-xatu plateau bi duñu ko may ñuy leeral ci lu bari mooy dafa wax ni rus naa jamonoonte ak nit muy faatu yi dem safara Serigne Saliou nàmputal ñu ci yërmande yi suñu borom joo xam ni dafa waxoon ne ku dul yàlla suñu borom mi bind jaam ñi. Uh-huh. ëppoo ma yërmande ci jaam ñi. kon loolu rek jar na di sant Serigne Saliou saa su nekk. waaye duñu ko man di fësal bis bu nekk dañ koy yelu waaye danañ ci tànn bis boo xam ne ci lañ am ndigalal Serigne Ousseynou mii suñu bunt ci moom. Mm. mu jox ñu ndigal ñuy taxawal cant gi waa Daara Soxna Faat di ko def. Grand Médine lay amee en face stade amitié. man 26 laa dëkk di. ah kon soriwul danaa ñëw nañu mobiliser suba. Ah, waaw loolu am na solo kon ñi nga xam ne dañ leen a tippee bis bi itam. Mm-hmm. bëggoon nañ ñu tudd seeni tur muy fi ñu koy tàmbalee rek mooy. alxuraan ji ñi ngi ko jagleel Serigne Ousseynou kan boroom xalima gi. Mhm. xasida yi ñu pare nee ko Serigne Amsatu Mbàkke jaalibatu maraaxib. Mhm. moom sëñ Soyibu mhm. ci dara jaal bi nga xam ne dañ ko dara jaal ay ñenn ci ñoo xam ni ay wëllëre sëñ bi lañ ak ay taalibeem. ki ci jiitu mooy sëriñ Baara Mbacke di setu Serigne Mouhamed Mbacke di setu sëñ Baara. moom Serigne Touba. ki ci topp di sénération Jalamar bi nga xam ni ñoo nekk Grand Médine mhm. di ay mag ñu fa nekk ñoo xam ni wax dëgg yàlla taxaw nañ taxawaay bu ko jar ki ci topp di Pape Ndiaye professeur mhm. marraine yi moom soxna Yumbu Mbàkke moom Serigne Moustapha Saliou soxna <laughs> Mariam Saliou soxna Mariam Saliou moom it ci marraine yi la bokk mhm. soxna Ndaak Diop soxna Mari Ndaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ marraine bis bi eh, eh, ñi ngi woo ñëpp ñi nga xam ne <laughs> ñi ngi ñuy jàkkaarloog ñun mm, mais yëkkatil pour euh, pour tëjal euh, en quelques secondes rek ñu ñu tëj tu tëj euh, sa intervention Serigne Saliou faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boromam mu dal ni waaw muy di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi sëriñ saaliw faj aajo yaa ci gën a gaaw loo wax sa borom mu dalli waaw ngay fal di folli ci lu gaaw mat nga ragal ci xarnu bi gis nañ ci yow jàmm ak salaam ba ñépp nekki du doomi jaam sa ñaari waajur yi nga am xam na ni yaa nga ca kanam. Mm, macha allah macha allah euh, suite bi suba lay doon ca Grand Médine euh, kon euh, sant Serigne Saliou nee naa vingt cinq vingt 26 ñoom ñëpp dinañ ko rek daal di rek teewee kon Serigne Thiaw di la gërëm bu baax a baax ci li nga ñëw kon ci suñu plateau di yeewu leen.